الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهدني الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن sakartuhu lianu xat saxani liwatani bi nafa ma anfani wahalani li alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xat saxani liwatani bi nafa ma anfani wahalani alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani wa hadani li alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan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 bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare ci ajjuma ji di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq di sàkku ci ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu jéggal nu wëlbatiku di ko sant ci xewal yu bari yi mu defal te bi ci gën mooy boole gi nu boole ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye rek di ko ñaan ci mbaaxam ak sañ-sañam Cheikh Mouhamadou Mountakha suñ borom tawféexal tawféexal ko mu yàgg fi te wér te tawféexal ko li mu bëgg a liggéeyal ci toolu lislaam bi yépp mu liggéey ko nu ànd kook moom te daje cee ngërëmul seriñ bi ginnaaw bu dellusee tey ji ci àjjuma ji di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu fii ci Touba Mbacké al ci waxtaan wi ñuy sëq yéen ci jataay bii ngir laayante biir ak soññante ak yéen ñëpp lu baax muy émission bi nga xam ni wala waxtaan wi nga xam ni tur wi mooy Saxum Touba moo lal yépp bu dee ci wàllu site bi la mën ngeen ko jàpp ci Saxum Touba point net wala ci YouTube bi Saxum Touba l'officiel muy Saxum Touba seetub murid la le miroir du mouridisme am yéene nag ci mu yaatu lool ba liñ ci bëgg a tëral ci programme lépp mu man daj ba bokk yépp mën koo jariñoo taalibe yi jullit yi ak réew mi yépp li waxoon keroog rek kuntum xayra ummatin taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar mu mel ni yàlla da koo tënk ci gën gin gën xeet yépp mi ngi tege ci di diglu lu baax rek tey tere lu bon yéene ji nag ci bëgg liggéey liggéeyal Serigne ci domaine bii walla ci ponk bii pàcc bii moo ko waral nde bi benn rek ci li nga xam ne ñoo ngi nab nabi di ko jéem ci liggéey sëriñ bi lii lenn rek la ci lii lenn rek la ci ñaan yàlla di sàkku ñépp ñaan suñu borom taw féexal nu ba nu mën koo matale ànd ko bokki taalib yépp rawatina nag jàmbar yi di soppee daari Saxum Touba di leen ñaanal saa su nekk di leen gërëm di leen sant tey nag ni ma leen ko waxee tey mooy ñetteelu jataay bi bu leen neexee ngeen ni émission bi nu tàmbalee waxtaane tukkib sëriñ bi gànnaar ak léegi muy Mauritanie xam ngeen ni boobu mooy deuxième exil mooy ñaareelu yoon bi tubaab bi génn Serigne Touba Sénégal yóbbu ko bitim réew ngir bañ rekk lislaam taxaw ni mu war a taxawe ngir bañ rek nit ñi yeewoo nu ñu war a yeewoo ngir bëgg rek dëkke noo noot ba faw ngir bëgg rek suñ lépp di àdduna nu bàyyi àllaaxira loolu yëpp ba tey jiituwaat bi noppaluwu ci li mu daj ci sëriñ bi yëpp moom loolu rek la mooy li mu bëggoon ci réew mi bëgg ko ci jeunesse réew mi bëgg ko ci mag ñi bëgg ko ci jigéen ñi ci ay jikko yu ñaaw ci nekk ay dof ñu di leen exploité ci li ëpp solo nag mooy ñu bañ a am diine bañ a am foi bañ a gëm dara wala ñu gëm-gëm woyof goo xam ne dañuy wax ni gëm nañu rek te jiitu rek lay doon loolu moo doon bëgg-bëggu tubaab bi ak yilif nu nag noot nu ba lu mu bëgg ci noonu rek am ko loolu nag ki taxawoon ni ko ba mu ko teelee xool ba xam ko ci ndigalul boroomam ni yàlla di joxe nit yàlla yépp ndigal mu jox ko ndigal waaye lu jiitu loolu nag daa fekk mu am lu ñuy wax volonté sëriñ bi dafa amoon vision am volonté boo ko seetee ci réew yu nekk sax dinga gis ni ñu bari am nañ vision waaye volonté ba moo fa dul nekk dañ ko dul bëgg am na ñoo xam nag dañ dul am vision du ñu am volonté wala iyaatu billah te dal na réew Afrique yu bari loolu moom bokk na ci gàllankoor kon tey noo ngi ci ñetteelu waxtaan ci bi Serigne Touba jógee Sénégal dem gànnaar te tubaab yóbbu ko fa li ci daje itam mooy fukki fan ak juróom-ñeent la tey ci weeru gàmmu fukki fan ak juróom la jóge woon daarul mën naan ci weeru gàmmu war a dem Mauritanie tey di fukki fan ak juróom-ñeent di ajjuma bu ndeeteelu ci li nu wees woon nag ngir ñu xam ngeen baal ma mooy rek émission yi jàll yépp mu ngi ci sit bi. Saxum Touba point net <coughs> mi ngi ci YouTube bi kon kum ci ci itam boo nu dabee bu la neexee boo delloo ginnaaw di nga ko mën a topp dara du la ci manqué ndax première bi ak deuxième bi ak troisième bi muy bi njëkk bi topp yépp moom jóge wu saa su nekk suñ ko defee rek ma nga fay tege te bind nañ ci ne bii mooy bu njëkk bii mooy ñaareel bii mooy ñetteel bi tey jii mooy ñetteel bi loolu li ma ci jublu rek ngir dara bañ leen cee raw rek <coughs> ci koo xam ni tey direct bi raw na ko wala mu nekkoon ci leneen ba yëg ko woon di ko soog a dab kon nag ginnaaw sëriñ bi li ñu leen wax ci tubaab bi li mu bëggoon ci ñoom xam ngeen ni waxoon nañ ba egg ci sëriñ tubaab bi mu jógee daarul ma Manaan bi mbaaxaan àndee quartier gi ñu visité fekkuñu fi dara bi buur seen ñibbee bi sëriñ bi nangulee Cheikh Sidiya ni ko dinaa ñëw ndar fekk la fa kon ba sëriñ bi sëriñ laaj lu tax tubaab bi sonn ba dee ngir sëñ bi jóge daaru manaan eh, te nanguwul waaye seex si yi ñëw rek mu nangu sëriñ bi sëriñ doon ci laaj ab laaj ba noppi tontu ko wane ni muy mu neen mu baaxil xadim sëriñ bi gàntalul tubaab bi ngir dara nangulul Cheikh Sidiya ngir dara dafay fekk ni sëriñ Tuubaa diggam ak boroomam dafa am contrat bu ci nekk mooy du def dara dara dara te ndigal li jógewul ci yàlla waaye du caaginu dafa dafa dafa dafa refusé woon tubaab bi ak accepté Cheikh Sidiye ci appel bi déedéet moom ndigalul borom rek la doon diglu bi Cheikh Sidiye di woote bi Cheikh sidi di wax sëriñ bi nag mu fekk ko euh, ndar ngir ñu ànd ci pexe tubaab bi boobu dafa fekk sëriñ bi am ndigalul yàlla kon tombe moo waral loolu kon waaye ni ma leen ko waxee woon ci bi weesu rek xam nga tubaab bi ñoom jàppe nañ nit ku ñuul koo xam ni dof lañ ñu jàppe dof gu metti ak ngannaay yi ñu yor ak tiitalaate géeg yu bëree bëri ba tax na cheikh si seriñ bi moom mu ngi nanguloon cheikh Sidiye ni ko maa ngi waaj te ñëw fekk la ndar kon kay jaratul woon ñu yónni ay espace mel ni moom dafa bañ wala dara waaye bëggoon na ñëw woon ci yoon yi buy dem rek pour ni ñuy terroriser nit ñi ci seen xel ak jamono yooyu yor seen fital ak ñu yónni juróom-benn espace ñu escorté señ bi waaye sëñ bi koo xam ne nee na maa ngi ñëw kay te xam nga jikkoom naka jekk li wax dina ko def <laughs> jërul yónni ay ñaar nekk ci ndeyjoor ñaar nekk ci càmmoñ ñaar nekk ci ginnaaw ñu mel ni dañ koy forcé de muy jiitu loolu waxoon nañ leen ko bi mu jógee daaru mën naan jaar diggante daaru salaam ak ndaam muy banti jana ya nekk ci diggante daaru salaam ak ndaam fa la jullee takkusaan dem fanaan ngaabu jógee ngaabu dem njaareem signé lii wane ni moo jóge ci province bi dem ci province bi ci commandant de cercle bi jóge fa nag jaar Touba Tool ni leen ko waxee woon dem egg Tiwaawoon jëlee fa saxaaru guddi egg Ndar ci guddi gi Cheikh yi la fekk ca gaar ba mu di ko teeru bañ demee ba ci suba sa mu ànd ak Cheikh Sidiye war a dem ci gouverneur ngir ñu def formalité yi ñu signé décret bi koy génne Sénégal bi ñu see yàlla dogal gouverneur taxaw ak soldats yeeg ñëpp ñuy lever drapeau bi di ko yëkkati drapo France bi bi ñëwee ànd ak Cheikh yi yem ci loolu ñëpp taxaw. ah sëriñ bi moom dafa wëlbati woon ginnaaw drapeau bi gouverneur bi mer lool ni ko lii nga xam ne ni mu rëyee di symbole France ñun ñëpp ñu taxaw di ko màggal yow nga di ko woon ginnaaw wax ko Cheikh Sidi ni ko na wax ak moom ni ko da wëlbatiku sëriñ bi na wëlbatiku woon drapeau bi kanam Cheikh Sidi wax ak moom wax ak moom ba muy ñetti yoon sëriñ bi ni ko waxal gouverneur bi ni ko su fekkee ni bëgg na mën na maa wëlbatiku jàkkaarloog drapeau bi waaye su ma jàkkaarloog bi. nguurug France na ko leer ni tey lay yem ba ilaa yu mu diin su bëggee nag ma bañ a woon drapeau bi kanam ba nga ma woon ko ginnaaw mu dem ba fu fu fu fu neexee yàlla mu yem fa gouverneur moom xam na ku xamul yaax mu ni ko neel sëriñ bi na ko bàyyi jërul mu di ko woon kanam ñu bàyyi ba yëkkati seen drapeau sëriñ bi moom xoolul drapeau bi da ko woon ginnaaw bañ noppi biñ noppee lañ ni ci lañ ànd dem ci bureau ba ci diggante bu gaaw ñu signé décret bi bi koy génne Sénégal yóbbu ko Mauritanie mu ànd ak Cheikh Sidiye ñu dem loolu nag bi mu amee ñi ngi daal di jóg takk dem Dagana Cheikh yi ak sëriñ bi ànd dem Dagana dem Gaaya déggi jé déggi jéggi dexuk jukku gi mooy fleuve Sénégal ñu jéggi ko booba jox nañ ko Cheikh Sidiye ni ko àndal ak moom waxoon nañ leen li taxoon Cheikh Sidiye moom nangu tubaab bi moom mënatul woon force sëriñ bi waaye dafa wax Cheikh Sidi ni ko am na avantage bu ci am boo demee ànd ak moom dem gànnaar nit ku ñuul dafa complexe bu ñu fa demee taalibe yi buñ ko mëntu bañ a fekk foofu itam bu ñu ko fa fekkee duñ ko mujj bàyyi jéblu ci yow topp la nun nag li ci suñu avantage mooy am nañ yaakaar ne bu demee gànnaar diggante bi coono boobu du jaral nit ñi ñu fekk loolu bokkoon na ci li nga xam ne taxoon na Cheikh Sidiya nangu waru ci waxi tubaab yooyu ba ànd ak ñoom ci loolu biñ duggee gànnaar nag kon léegi moo Cheikh Sidé ànd naa ak moom dañoo daal dugg rek daal di jël aaday naar habitude naar naari gànnaar yi lan lañ def mooy dañoo tàmbali nag Cheikh Sidé fu mu jëm mook sëñ bay ànd naar nag xam ngeen ci moom lu lu lu gàtt mooy dañoo yor seenu jur muy ay troupeau lañu ay sàmm lañ daanaka fu ñax am ak ndox rek foofu la ñuy dem bu ndox ma ak ñax ma jeexee ñu jóge fa dem feneen donc dañuy déplacé wu di déplacé wu. sëriñ bi nag daal di ànd ak Cheikh Sidiye ñu nekk ci loolu bu Cheikh Sidiye dem ni ko ayca mu ànd ak moom buy toog ni ko ayca mu toog ak moom ñuy takk ak laxas rek di def noonu ba egsi nag Sarsara bi ñu egsee Sarsara nag ñu toog fa ab biir ba Cheikh Sidiye war faa jóge daal di wax sëriñ bi ni ko léegi nag man ngaa waaj ñu dem damay dem dañuy dem jóge fii Sarsara sëriñ bi ni ko damaa am waajtaay. maanaam maa dem damaa war a am waajtaay damay préparé daal noppeeguma Cheikh Sidi ne kon ni ko nañ la muñal ñetti fan nga mën a préparé ah ñu toog ñetti fan ñetti fan yi jeex Cheikh Sidi ni ko kon léegi nan waaj léegi dem ca dem sëriñ bi ni ko ba léegi de noppeeguma sama waajtaay jeexagul mu ni kon nu mayaat la ñetti fan mu mayaat ko ñetti fan mu juróom-benni juróom-benni fan yi muy six jours jeex Cheikh Sidi ñëw ni ko nag léegi nan dem nag mu ni ko ah noppeegu ma nag ndax damaa am waajtaay sëriñ bi wax loolu Cheikh Sidiya maanaam mënagul a jóg dem daal Cheikh Sidiya ni ko kon ma mayaat la ñetti fan muy ñetti ñett muy juróom-ñeenti fan la ko may ci waajtaay bi juróom-ñeenti fan yi jeexee nag Cheikh Sidiya ni ko nag man mënatumaa bañ a jóge Sar Sar damay dem maa ngi ma àndal ñëpp léegi nag na la leer ni bu ma la fi bàyyee bu la fi tubaab bi fekkee. luñ la def na la neex ndax man maa la garanti woon ba tax defuñu la dara bu ma la fi bàyyee nag man damay dem bu ñu fi ñëwee ëllëg mën nañ laa yóbbu Madagascar wala ñu sonal la sëriñ bi ni ko waxoon naa la ni la lu neex sama borom ci man ku mu ko mën a jaarale ci yow juboo naa ci loolu dafa may neex sëriñ Tuubaa ni ko wax Cheikh Sidi ko Cheikh Sidi waxoon naa la ni la man sëriñ Tuubaa lu neex yàlla ci man ak ci ku mu ko mën a jaarale bu boobaa daf may neex te dama ciy juboo kon nag dem Madagascar ak tubaab bi fekk ma fekk yooyu yëpp bu dee dafa neex sama borom loolu dama ciy juboo waaye fi ma waxee yow nag man Serigne Touba damaa amagul ndigal ci jóge fi loolu nag ma leeral leen ko li ko waral léegi sax bu ngeen di déglu waxtaan yi war ngeen ko xam xam ngeen ni bi muy jógee daaru ma naan dafa toog ba am ndigal yonent bi feeñu ko soog a jóg. sëriñ bi naar ba waxoon na ko bu yàgg waaw maanaam ak jógam ak toogam lépp ci ordre divin lay jóge ci ndigalu yàlla du jóg rek comme ça noonu ma jox leen ci benn exemple jeewal kay moo gën a metti biñ ko jëlee Mbàkke Bari di ko yóbbu Ndar bi mu ñëwee ba jeewal la fa nekkoon espèce ak seeni fital ak yëpp foofa gënoon rek lu fop waaye bi commandant de cercle lu ñëwee ni ko dañu dem bi bi bi euh, le clerc ñëwee ni ko ay ca dañuy dem sëriñ bi ni ko amaguma ndigalu son borom da damay faran jeewal loolu moo waroon faran jeewal fii ci daarul manaan itam noonu kon sar-sara itam amagul woon ndigal ndax fu mu masaan jëm moo Cheikh Sidiya ci biir gànnaar yonent bi daf koy feeñu ni ko sa borom nee na nga wàtte ànd ak Cheikh Sidiya mën ngaa dem bii yoon nag ci sarsaara dafa gisagul yonent bi feeñoo ko jox ko ndigal ni ko sa borom mën ngaa dem loolu moo tax mu xamal ko ni ko nag man mënu ko maa dem léegi nag bi sëriñ bi waxee loolu nag ah Cheikh Sidiya nag xëqanteeg sëriñ bi xëqanteeg sëriñ bi nag sax ba mer lool moom Cheikh Sidiya daal di bàyyi sëriñ bi daal dem mere sëriñ bi daal di bàyyi ko sarsaara daal dem moom si Sidiya mere ko bàyyi ko fa waaye bi ñu daan dem ñu àndoon ak Cheikh Sidiya ci ay ñi ko jegee ak taalibeem ñi àndoon ak moom ñëw nañ ci sëriñ bi ni ko yow de yaa ngi nuy bëgg a jaaxal boroom xam-xam bu mel ni yow Sëriñ Tuubaa ku selle ni yow ku baaxe ni yow nga ànd ak sëriñ mu di la jox ndigal ngay gàntu maanaam ñoom booba dañoo jàpp ni Serigne Touba taalibe Cheikh Sidiya la ñoom taalibe yi ànd ak Cheikh Sidiya Serigne bi rek daal di tàng lool ci wax joojee ñu àndoon ak Sidi wax ñu leen yéen yéen a am kumpa yéen waaye Cheikh Sidiya seen Serigne amul kumpa xam na ni man ku dul yàlla ak yonent bi xajoo wooma man Muhammad rek mooy sama Serigne. ku dul yàlla ak yonent bi xajoowu ma yéen nag moom man ngeen ko bañ a xam waaye seen sëriñ bii Cheikh si moom amul kumpa ci loolu leer na ko loolu nag dañuy dellu ci benn bayit wu bi bindoon lu jiitu sarsaara bu yàgg baana li kulli man lahu wilaaya anna wasilati huwa rasul bali kulli man lahu maxlu anna wasilati huwa rasul maanaam sëriñ Tuubaa ne na képp ku am wilaaya wala ko amum xel leer na la ni man kenn rek mooy sama sëriñ muy Seydina sallallahu alayhi wasallam ba mu koy wax nag booba egseguñu woon sarsaara kon nag day leeral lii loolu nag kañ la ko waxoon ndax ñi may déglu mën nañ ne ah waaw kii Serigne Touba am na fu mu waxee ne am na sëriñ ji masaayix yi jilaani chadil yi tijaan yi mas naa waaw loolu mën naa nekk loolu mooy ba muy dox wut ay sëriñ wut ay wasila ànd ak ñoom wala mu jël seen wér di bokk ngir bëgg lu baax di dox di dox ba romb leen muy as cheikh Abou Hassan Cheikh Abdul Xadir Jilaani Cheikh Ahmed Tidiane nekk ci ñoom nekk ci ñoom ba romb leen nag booba nag ci la bind lii bayit wii baana li kulli man lahu wilaaya anna wasilati huwa rasulu baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu ba mu leen demee ba romb leen nag ba dépassé leen ci la bind lii war ne man kenn mënatu la nekk sama sëriñ ko lu yant bi foofu nag ñoom ñoo ñee nga xam ñoom laa tudd mu Cheikh Abou Hassan Chadali Cheikh Abdoul Khadir Jël Cheikh Ahmad Tidiane dem nañ ba jamono yooyu wëlbatiku nañ di sàkku ci moom ngir mu téye leen seen yoon ñu dénk ko seen yoon loolu dem na ba am ndax danga ko gëm ndax da nga ko weddi ndax déedéet lenn rek moo ci am mooy benn mbir mu gàtt maanaam falaa bu bul jagleel ngëneel ngëneel bul ko jagleel ñi jiitu woon bul ko jagleel ab der itam bu weex ñépp ñu baax lañu waaye bu fekkee ne tey Serigne Touba day day day borom imaan di borom islaam di borom ihsaan di jullit ci liñ mën a wax rek laa wax di nitu yàlla waaye mu yor der bu ñuul ñee yor der bu weex dama dem ba am njàmbaar gu toll ni am maqaama mañ am ca yàlla waa léegi la ndax da ngaa bëgg a wax ni yàlla moom foofu lay fermer mbir yi da nga ko bëgg a wax déedéet li ñuy weex weex weex li ñuy baax baax baax li ñuy liggéey liggéey liggéey Serigne Touba ñëw na moom ni man sama ambition dépassé na lii topp ci ñooñ ba am loo xam ni ay maqaama yu wees yooyu kon nit ku ñuul ki war boo waree mën a nangulee rek war koo nangul keneen rek war a mën a nangul sëñ Tuubaa ni mbir mi mbirum yàlla la da ngay ñaq rek mu jox la ko sëriñ bi bu dee ci wàllu bind fa lay sa yu jibu sawaadal jismi safahatal aqli wa su alfahmi moom sax bind na ko nee na der bu ñuul noirceur de la peau wërta tekk yi nga jàpp ne yow am yan nax ngay am yàccaaral nga kon Serigne Touba moom bi mu ñëwee xoolul der bu ñuul xoolul der bu mboq xoolul der bu weex li mu wax mooy lee fee la tege ñi koy wuti dinaa ko wuti ba weesu ko man bu wuti ko ba yàlla may ko ci la gaa yu baax yii ma leen wax nii léegi deme bay sàkku ci moom mu téyeel leen seeni yoon kon loolu itam lu ma tabaay xel la nit ku ñuul nag ah war naa doon kon fierté ci moom mu am koo xam ne dafa der bu ñuul taxaw def loo xamante ni bii nit ku weex def na ko du xëccoo de du wujji de waaye dama ne kenn ku ne mbay ci sa wewu tànk fépp baax waaye bu ñu demee ba am ko toll ni Serigne Touba di Xaadimu Rasuul wëlbati di ko def li mu def egg fi mu egg ba yàlla may ko li mu ko may le minimum c'est de le reconnaître et am ci mbégte am ci fierté le minimum boo mënta ñëw it le minimum mooy loolu kon loolu moo jaar bi sëriñ bi digganteem moo tax mu leen amatu ba benn sëriñ bu dul sallallahu alayhi wa sallam Euh, léegi nag ba ñu waxee loolu boobu ba waxee naar yi ba noppi ni leen seen sëriñ xam na ni man yonent bi mooy sama sëriñ daal di wëlbatiku rek mbàkke ci mbaax gi ak maslaa gi daal di nag di maslaa ak taalibe yooyu yooyu ko doon wax nag naan ko sa sëriñ digal la ba noppi ngay gàntu mun leen law nootal xiyaara maftaraq naa wala kin na la wala kin laa xiyaara ma al mun leen su fekkoon ne choix bi de ci nun la nekk duñ tàggalikoo yéen waaye nag yéen seen choix mi ngi nekk ci ñax ak ndox yéen fu ndox nekk ak ñax rek ngeen nekk nun nag doxewuñu noonu suru rek loolu de kon duñ tàggale ko mukk nooy ànd ba faw ngir rek rafetal seen digg ak ñoom daal di leen wax loolu law na otal xiyaara maftaraq naa walakin laa xiyaara maa la xashish loolu la wax naar yooyu doon ko wax nañ ku baaxee ni yow ku bare xam-xam ni yow sëb sëriñ digal la ngay gàntu kon loolu moo rek léegi kon lan moo xew fan la xewoon Sarsara lii ma leen di wax lépp Sarsara xewe Cheikh Sidiye la dem na mere na sëriñ bi xëqante na naar yi ànd nañu moom bàyyi nañ sëñ bi sarsaar nag léegi nag lan moo xew sarsaar ak ngeen dégg taarix saxal na ni histoire saxal na ni ci sarsaara ñetti groupe ñetti mbooloo ñetti kuréel fekk nañ Serigne Touba bi Cheikh Sidé demee ñetti ñetti kuréel yu bokkul fekk nañ Serigne Touba sarsaara yan kuréel lañ kuréel bi jëkk ay nit lañu woon di boroomi xam-xam yu dem bay gëstu ci diine am lu leen jaaxal ñu ñëw doon ko laaj ci Serigne Touba. loolu di nga koy dégg naan gàgganti na gànnaar loolu yaakaar naa lu nit dof dof dañ ko dégg waaw gàgganti na gànnaar maanaam gàgg mooy koo xam ne dem na bu mënut dem nga nga leeral ko li mu bëgg a xam kon kuréel gi njëkk a ñëw mooy kuréel goo xam ne dañoo demoon ci diine lislaam di laaj am lu leen ump lu leen leerul ñu ñëw di ko laaj Sëñ Tuubaa ñaareelu kuréel bi mooy kuréel gi nga xam dañoo ñëwoon doon di nga Sëñ Tuubaa di ko contesté ci xam-xam beeg di ko tes ak yooyu mu ñaareelu kuréel bi ñetteelu kuréel bi mooy ay naar yu déggoon Sëriñ Tuubaa jotoon ko gëstu ba am ci moom lu leer daan ko fekk fi mu daan nekk ci biir gànnaar bi mu daan isi di gëstu yu mbiram di ko xool di ko xool ba ba loola doy leen nag léegi ñu ñëw di jébbalu si ci moom ci sarsaara kon ñetti kurél yi ñoo ñëwoon te lii ma leen di wax ni di ngeen ci am leer Minanul Baaxil Xadim bu Serigne Bachirou ak sëñ Mouhamadou Jëm am Diop danga leeral na ko kon ñetti groupe ñoo fekk Serigne Touba Sarsara ñii dañ doon laaj si waaye nag ñoom ñëw ñëpp am na lu ñu wax nee nañ ci histoire. ñetti groupe yooyu nee nañ ci histoire musuñoo gis musuñoo jëflante ku mel ni Sëñ ku mel ni Sëñ Tuubaa ndax musuñoo jëflante ku baax ku mel ni Sëñ Tuubaa ndax bu fekkee dañ doon laaj ci xam-xam. na leen leeral na leen leeral ba seen bopp ubbeeku na ba amatuñu lenn lu leen lëndëm ci liñ doon laaj waaye façon bi nga ko doon defee ak ñoom itam yéem na leen ñaareelu groupe bi itam ñu doon wedd si ak di diingat di contesté dem nañ ba egg ci ni ñoom weddem nañu. mënatuñoo contester mënatuñoo weddi ndax li ñu doon weddi lépp Serigne Touba jox na leen ci ay preuve yoo xam ne ñoom conteste bi leen indi woon génn nañ ci. ñetteelu groupe bi mooy ñi nga xam dañoo ñëwoon déggoon Serigne Touba gëstu ko ba xam mbiram ba wóolu ko ñëw di jéblu si ci moom groupe boobu nag ñoom Serigne Touba kenn ku ci nekk teg na la ci siraatal mustaqim ba fekk bu fekkee ne wàccewu ko dangay ngay egg ci yàlla suñu borom kon ñett ñi ñoo fekk Serigne Touba sarsaara muy ñu doon laaj si xam-xam ñu doon diingat si ñu doon jéblu si waaye kenn ku ci nekk reconnaître nga ni ba nga dalee jëflanteeg nit ba léegi mosoo jëflanteeg nit ku baaxee nii ci xam-xam bi ak ci lépp ñoom ñoo ko waxal seen bopp loolu irwa un nadib indi na ko taarix saxal na ko léegi nag ginnaaw sarsaara la ñetti groupe yooyu fa lañ ko fekk te jaar naa ñoom foofu lan moo fa xewaat sarsaara mooy ñenn ñoo jëkk jiblu ci ñii ma leen di wax nii ndax ñee moom wax naa leen ko tontu na leen ci xam-xam ñii ci des weddam nañu dañ contesté sëñ bi indi na leen mënatuñoo contesté weddam nañu ñi doon jéblu si nag ci naar yu xonq cur ñëw di jéblu si Sëñ Tuubaa ni ko aslamtu def jébal na lu suñu bopp ki ci jiitu ci ki ci jëkk jéblu ci gànnaar mooy Abdullahi ibnu Boyda Abdullahi ibnu Boyda mu ngi bokk ci giir gu ñuy wax idéwal hajj moom ñam bokkal ndey ak baay ñëpp ñoo ñëw jéblu ci sëñ bi sarsara giir gu ñuy wax idéwal hajj bokk ci banu daymaan banu deymaan nag bu ñu la ko waxee yow sa xel dana dem Arabie Saoudite maanaam fañ cosaanoo banu daymaan la waaye giiru idawal xaaj la ibnu Abdullahi ibnu Bayda ak i bokkam ñoo jëkk a jébbalu ci Serigne ci naar bu xonq ci biir gànnaar loolu nag Serigne bi sax bindal na ko boppam ndax lu ci bari ci histoire sëriñ bi sëriñ bi ko bind loolu tax sëriñ bi bind naan lu siiw loolu ngeen di dégg yéen ñëpp hamdi wa shukri liman kulli bihi soora lahu ridon duna suxtin inda sorsoora lahu sanaa'i wa ridwaani bila soxatin mudu qadali min bani daymaani ans min bani daymaani ansaara inna alladina ila sorsoora qad qasadu ziyaarati faaraqu daareeni aw zaara loolu sëriñ bi ko bind firndeel lii ma leen di wax muy ñiy jébbalu si woon lan la wax foofu day sant yàlla di gërëm yàlla mi ko wommatal nee na mi ko indil ci bani daymaan muy giiru askanu daymaan ñi ko yàlla mi ko ci indil ñoo xam ni ñëw nañ di ko dimbali si ci gànnaar di ko jàppale si ci liggéey bi nekk ay taalibeem na bannu najaar ba yonent bi gàddaay ñëw ma madina bannu najaar nañ dimbale yonent bi gàttandu ko tattan ko ànd ak moom ci lépp noonee ko yàlla defale woon bani najaar ñu ànd ak yonent bi doon doon doon doon doon ko jàppale ni la ko si yàlla defale Sëriñ Tuubaa banu daymaan ci biir Sarsara ci biir gànnaar ñu ñëw ñoom itam doon ay ansaar di ko jàppale si Sëriñ ci lool la doon sant yàlla ci bayit yi ngeen di dégg daal di cay wax nag ni inna alladina ila Sarsara qad qasadu ziyarati faraqu daarini aw maanaam dem na ba egg ci ni ñi nga xam ne dañu jóg bàyyi lu ñu jàppoon ñëw di ma siyaare ci Sarsara tàggoo nañu bàkkaaru àdduna ak àllaaxira faraqu ni aw zara lépp luy tilim tilim luy bàkkaar tàggoo nañu moom te loolu dinañ ci ñëw léegi ci leeral gi mu gën a yaatu incha allah lan la wax mooy dani yàlla teqale na ma ak bàkkaar teqale na leen ñoom ñoo ñu ñëwoon sar sara di ma di ma ziar teqale na bàkkaar waaye yëmu ci aar na ma aar na leen ci lépp luy waral bàkkaar xam nga loolu gën neex lépp maanaam yàlla blende la blende la aar la ci lépp luy waral bàkkaar ba doo ko mën a def nee na defal na ma ko defal na ko ñi ñëwoon di ma ziar ci sar sara man Serigne Touba léegi nag am na benn lettre boo xam mooy firndeel li ma leen wax Serigne bee ko bindal boppam lettre bi fii ci surra ci Touba sëñ ma doon Lo di doomi sëñ maxtar Binta Lo sëñ maxtar Binta Lo la sëriñ bindoon lettre bi lettre bi sëñ Modou Khayri nee na maanaam sëñ Mahamadan Lo bi mu koy toxale ci moom mi ngi toog maanaam lettre bi sëriñ Touba ku bindoon sëñ Maxtaar Binta Lo sëñ Mahamadan Lo doomam yor ko loolu mooy li ma njëggal gii nga xam moom lañ jéggal ñooñu sëñ Touba leeral na ko fii léegi loolu laa bëgg a indi ak yéen lettre bi sëñ Tuubaa bi nu muy nii bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa baad fal yaalam kullu man waqafa fi hadihi alwaraqati aw fi ayati waraqatin nuqila minha naqlan sahihan bi anna muridaya almuxtaar wa muhammadan wa gayruhuma mimman kaanu macaya fi algaybati althaniya qad gafira allahu taala lii wa lahum wa annahum jamian yaxfaduhum allahu tabaraka wa taala an ilfawaxishi dahira walbatina bifadlihi wa juudihi wa karamihi wa anna man lam yataxayabu maaya fi lxayba athaniya wastagalu bacda xuruji bima lam yakun fihi sheyun min darari sirran wa alaniyatan yaxbituhum abadan man ishtaxalu bima fihi shay'un yasuuni aw yaduruni sirran wa alaaniyatan fa dalikum allahu rabbukum wa maada baada alxaq illa dalal wallahu ala ma naqul wakil Sëriñ Tuubaa lan la wax ci lettre bi mooy lettre bi mu bind sëñ Maxtaar Bintaloo ginnaaw bu mu wax bismillahi rahmaani rahiim julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni képp koo xam ne gis nga mbind mii ma bind man sëñ Tuubaa ci sama loxo wala këyit wii ku ko gis wala nga gis këyit wuñ ko toxale xam nga man fi toll gisuma du këyit wuñ ko waaye këyit wii ma yor nii ca woo lañ ko toxale mu ne waaye rek toxal gu wér mu nekk lu leer nañ amul benn faute ci ne ma ko waxee nañ xam ni ku ko gis na xam ni sama ñaari murit yii muy sëñ Mokhtar Bintaloo ak sëñ Mouhamadan Mouhamadan ab naar gànnaar la woon da doon xaritub sëñ Mokhtar Bintaloo taalibib sëñ Tuubaa la waaye da doon xaritub sëñ Mokhtar mu ne ku gis nag sa sa kayit wii na nga xam sama ñaari murid yi ak ñeneen ñoom ñaar ñu dul ñoom ñi nekkoon ak man fil xayba thaniya ñi nekkoon ak man ca gànnaar ci tukkib gànnaar ba yàlla jéggal na leen jéggal na ma ba noppi jéggal na leen jéggal na ma jéggal na leen aar na leen ci lépp luy waral bàkkaar ñoom ñëpp wa annahum jamian yaxfaduhum yaxfaduhum allah tabaraka wa taala an il fawahish zahira wal batina lépp luy war a mën a indi bàkkaar wala luy indi tilim sun borom aar na leen ci ba duñ ko mën a def lan la ko defee yàlla fu mu teg loolu bi fadlihi wa juudihi wa karamihi ci ngëneelam ci tabeem ci mbaaxam la defee loolu moom yàlla wa na man lam yataxayibu maaya fi lxayba thaniya mu ni ñoo ñi nga xam ne jotuñoo ñëw maanaam ña ko ziyaare ji woon lañ la wax loolu ñoom lañ jéggal waaye ñi nga xam ne jotuñoo ñëw fii nag ci sama tukki bi ma ñëw Mauritanie muy sama deuxième exil bii ñi nga xam ne jotuñu cee ñëw waaye nag fañ toog itam nekkuñu fa di jéem ci man dara di ma jéemal dara lu ñaaw wala lu bon ne leen leer ñoom ñoo ñooñee dana am ñu leen ñee ñan moo leen di ñee ña nga xamante ci sama ginnaaw ba ma demee ñoom ñi nga doon jéem a wut lu ma lor ak lu ma ñaawal ak lu yàq sama mbir fa dalikum llahu rabbukum wa maada baada alxaqi ila dalal lii nag atteb suñu boroom rek la te ginnaaw dëgg moom ak réer rek a fa nekk mooy da gëm nga wala nga wedd rek dëgg na mi ni daal di signé signature bu mag ba mu doon signé muy wallahu ala na naqul wakilun loolu mooy lan li ñu bëgg a wax foofu rek mooy sëriñ bi dafa wax nii maanaam mboolem ñi nga xamante ni bii ñëwoon nañ gànnaar fekk ko fa sunu borom jéggal na leen aar na leen ci bàkkaar tukkib ñaareel bi alxayba saani waaye ñi nga xam ne ñëwuñu woon nekk ci réew mi waaye bi ñu fi nekkee dañoo jàpp seen njàmbur yéene ko lu baax di ko jàmm lépp nee na ñooñu de dina am ñu leen ñee mel ni jotuñ ko wax waaye ñen ñoo leen mu ne ñeneen ñi nga xam ne defuñu loolu xanaa dañ doon jéem a wut lu ma lor ak lu yàq sama mbir nee na ñoom danañ ñee ñi nga xam ne dañoo toogoon jàpp seen njàmbur di julit wala julit taalu bi te mënuñoo ñëw te yéene woon ma lu baax foofu nag mën ngeen fee jàngat lu bëree bëri kon di ngeen xam ni ba sëriñ bi jógee ci géej gi kilifa ga mu waxoon ni ko ana ba ma jógee ba ma nekkee ci tukki bi lu ngeen fi nekkee woon mu ni ko xanaa di jàng alxuraan rek ngir bañ nga dellu si kon dangeen di xam ni Sëriñ Tuubaa xam na bu baax bind na am na bu baax ni lii jërul sax discuter am na naka jekk ñoo xam ni bëgg lu ñu woon sëriñ bi jàmm bëgg lu ñu woon kenn ko ànd ak sëriñ bi jàmm te lii mbirum sëriñ bi waaye sëriñ bi moom jéggale ni ko waaye nag ñooñu la leen cay toppe mooy ñoom danañ ñee ñoo xamante ni bii ñoo yéene woon sëriñ bi jàmm te bëggal ko jàmm kon loolu moo tax bàyyi xel la beneen bi topp mooy ginnaaw sarsara mooy bi nga xam ne moo ci sarsara dafa bari yu fa xew mooy sëriñ am surtout wax na ni ci sarsara googu ñu nekkoon dañoo toog bi bis ba ci yàgg quatre-vingt-cinq personnes xam sa wa samaanin juróom ñetti fukki taalibe ak juróom ñoo nekkoon sëriñ Tuubaa ci waa Sénégal juróom-ñett fukk ak juróom ñoo nekkoon sarsara ci jamono yooyu ñoo nekkoon sarsar ak sëriñ bi bokkul ak taalibey naar yi nga xam ne ña nga fa woon itam bokkul ak taalibey naar yi nga xam ne ña nga fa ñoom ñëpp nag am na lu ñuy wax njaxnaat du ma ko mën a firil ñëpp ndax duñ ko xam waaye jàppal ni saakub ceeb daal neel saakub ceeb wala saakub dugub benn saaku rek moo fa desoon ci ravitaillement bi bokk ci liñ doon lekk benn saaku saakub njaxnaat la woon suba nekk quatre-vingt-cinq ak naar ya fa nekkoon ba benn saaku ba rek ba mu fa desee ci ravitaillement suba gu nekk danañ tibb nii benn ngëpp nii jox la ko bala ñu la ko joxate 24 heures jeex ci suba boo fanaanee ba suba lañ la joxaat beneen danga koy mëq danga koy siim danga nga koy denc yaa xam mais bala ñu la joxaat beneen suba ñëwaat benn fan ñu def ko ñaari fan ñetti fan ba ñeenti fan saako ba jeex sëriñ bi woolu génn ne nañ ko mbaaral mbaar ci digg ci digg kër gi ci sarsaar ci këram nañ mbaar mbaar ñu def benn mbaar bu mag foofu ci digg kër gi sëriñ bi ñëw bu jullee fajar ci biir ba noppi génn ñëw toog ci mbaar mi taalibe yi ñëw xool ko di ko wër dégg ko muy jàng ñu dégg ko ba noppi di ko xool maanaam ñeenteelu fan ba amatuñ loolu lekk juróomeelu fan ba kenn joxatul kenn dara waaye sëriñ bi génn gi muy génn par ñu julli buñ jullee ba noppi sëriñ bi toogaat nekkee ko ba gee julli ko diggante julli gu ne noonu la ñu def xool gi ñuy sol sëriñ bi ak gis gi ñu ko gis rek tax na yëgatuñu ab xiif bi ñu demee ba gee jot nag bu sëriñ bi dellu ci biir ku ci nekk mu woo la nga ñëw mu jox la ab dog kii mu jàngaloo loolu alxuraan kii mu jox la xasida wala mu jox la wérd nga dégg maanaam li nga doon def ci bëccëg gi nga xam ne gis sëriñ bi moo doon sa ravitaillement léegi guddi gi dog boobu mu la jox nga di ko jàng mooy tax doo yëg ab xiif def nañ ko benn fan ñaari fan ñetti fan ba ñeenteelu ci sar-sara bi nag ci la sëriñ bi daal di laaj te mbooloo mi toog yépp fere yi mun leen ndax genn gan ñëwu fi jóge ci réew ma maanaam ndax gan ñëw nu fi indaale ay xéwal indaale addiye indaale ravitaillement ab dund ñu ne ko am ah, mbàkkee de fi mu toll kenn ñëw fi mun leen déggu leen kenn ci yoon wi itam ku nekk ci yoon wi di ñëw am lu muy indaale ñu ne ko déedéet mbàkke bi mu waxee loolu nag mu daal di muuñ bi mu leen ko laajee ba noppi ñoom ñi ngi ko xiif waaye yëguñu xiif bi bi bi mu leen laajee noppi daal di muuñ muñam googu rek nga xam ne genn la bi mu am na ku ñuy wax sëñ Madou mbay Mbaye Madou Matar Mbaye daal di jóg nag jox xar bi sëriñ bi ne ko seex yaa ngi bëgg a jaaxal bi yaa ngi nuy bëgg a jaaxal yaa ngi nuy bëgg a jaaxal ba mu sëriñ bi ne ko Madou mu ne ko Mbàkke mu ni ko ana ma la jaaxale mu ni ko damaa xam ni Ibra Faté nga ca Daarul Mannaan ca senegal këram ngaa dàqu tabaski te la mu yor lépp yaa ko jox Cheikh Anta borom gaawaan a nga ci Daaru Salaam këram nga moo dàq tabaski te la mu yor lépp yaa ko jox Ibra Fall sa jàmba ma nga ca Sénégal te këram nga moo dàq tabaski te la mu yor lépp yaa ko jox mu wér ma ni yaa leen ko jox nun nag nu nekk fii di toskari tumuraanke man gi nga mën a faj suñ coono bi ak suñ jaaxle gii te fajoo ko loolu nga ma jaaxle foofu nag bala maa sori ma wax leen ci tuuti mooy sëñ Modou Matar Mbaye moom mu ngeen xam li tax mu ñimee loolu sëñ am satu nee na dafa yaroondoo ak sëriñ bi miin ko ci yi Maamoor Anta Sali bi ñuy jàng alxuraan jàng xam-xam nga xam ne booba sëriñ bi wooteegul ca jamono yi ñu jàng mook sëñ ma duma taan mbay miineel ko miin nag moo tax mu mënoon a waxee ak sëñ bi noonu nee nañ sax moo jëkk a jébbalu sëñ Adama Gueye ndax xam nga moom sëñ bi soñugul ma ngay jàng moom dafa nekk ak moom ca daara ja waaye jébbalu woon na waaye sax feeñul ko ndax loolu xam nga ne am na ci yoonu murit dégg nga li ñu wax soxna Anta Ndiaye ak Maam Cheikh Anta ak ñeneen ak ñeneen mutu sëñ Matu Matar Mbay mii nag moom dafa nekkoon sëriñ bi ba muy jàng nekk ndaw nee jamono yooyu sax jébbalu woon na waaye lu ci mën a xew rek dañoo bëggoon ngeen xam ne sëriñ Matu Matar Mbay kenn la ci mag yi murit yi moo doon wax sëriñ bi loolu ca gànnaar ca sarsaara naan ko yaa ngi may bëgg a jaaxal sëriñ bi dina ko tontu di ngeen ko dégg léegi incha allah sëriñ Matu Matar Mbay nag mooy wayjuru sëriñ Galo Mbay fii ci Daaru Xuddoos wala sëriñ Babacar Mbay moom sëñ Gaawaan ca Daaru Salaam loolu ku xam yoon wi di leen xam ginnaaw loolu nag sëriñ bi am na lu mu ko wax ba mu ko nee jaaxal nga ma mu ne ko ana lu ma la jaaxale mu wax ko loolu da ko ni accam sëriñ bi bu mu ko nee mën koo faj lañ yor moo dàq tabaski nga mën koo faj te fajoo ko sëriñ bi da ko ni accam moo duma taar man defoon naa ne ñoo ñu ngi wax yoruñu dara muy maam Thierno maam Cheikh Anta ak Cheikh Rafal xanaa xamu ni alal lu mu bari bari bari bari alal lu mu bari bari bari lu mu baax baax baax man koo sàkk moo gën am ko maanaam man koo sàkk moo gën am ko wóor na leen ni ñoom ñu nga ma wax muy maam Cheikh Anta ak maam Ibra maam Cheikh Fall leer na leen ni maam Anta ak maam Ibrahima maam Thierno Ibrahima Fati loolu ñu yor donne wuñ ko ci sëñ Mbàkke Moor maa bokk ak ñoom miraasuñ sëñ Maamoor Anta sëñ ñu donne ko ci maa ko liggéey ba mu leew ma doom ma jox leen ko. maa ko liggéey ba mu leew ma dom ma jox leen ko te ku ci sikki sàkka ni ku ci sikki sàkka ni maa la ko jox daal koy ñàkk fi saase xanaa xamu ne aw ñam lu mu neex neex neex neex bañ koo soxlaa ko gën xanaa xamu aw ñam lu mu neex neex neex bañ caa am soxlaa ko gën waaw ñam lu mu neex neex boo xiiful sëñ bi <laughs> neexit doo ko yëg loolee ñu yor su ma ci amoon soxla duñ ci duñ duñ ko jot su ma ci amoon soxla duñ ci jot wala bokk duñ ko yor toskare ji ngeen nekk fii ak tumuraanke gi ngeen nekk fii nag ma nekk ko yéen fii ci gànnaar maa ngi leen di xamal ne ñooñee dama leen di jox loolu ba noppi gàddul leen xisaab ja toskare ji ma nekk fii ci gànnaar ak tumuranki gi loolee jox naa leen ko ba noppi ëllëg yowmal xiyaam kenn du leen ci xisaab kenn du leen ko kenn du leen laaj rendre compte jox naa leen ko ba noppi kenn du leen ci xisaab dama leen di gàddul xisaab ja xam nga la ñu yor nu mu demee ci li ma yor suñ Modou Matar Mbaye la ñu waxal de sëñ Tuubaa ko xam nga la ñu yor nu mu demee ci li ma yor mu ni ko déedéet mu ni ko mi ngi mel ni nga yor sa laytanu su ñaar ngeen maanaam leket ku tuuti laytanu su ñaar ngeen nee na dem ba ca géejug ndar ga nga ñu ko jël la bu wuuj tànq ba noppi génn daw nag dafa ne géej ga fer na dara nekkatu fa lañ yor mooy la ca laytanu su ñaar ngeen sa li fi des moo li ma yor mooy lii des ci géej gi ku dul yàlla mi nga xam ne xam na ndox mi nu mu toll toq yi xam na nu mu toll rek mënoo xam ni fii tànqarañ fi dara ku dul yàlla mi xam toqi ndox yi nu mu toll mënoo xam ni ñii tànqarañ ci géej gi dara lañ yor mooy lañ tànq ca lay tanu si njaar gersa ki dugal ki ko dugal ci géej ga li fi des nag mooy li ma yor kon lii sëriñ bi wax na ko wan ko ko rek jeexu fi mu ngi man li ci des nag mooy bala maa sore ci wax jooju ginnaaw dafa wax ni maam Thierno Cheikh Ibrahima Fati ak maam Cheikh Abdou Ganou ak si ñëpp ku ci nekk mun la lañ yor adduna ak àllaaxira la sëñ bi wax. ñii la dikkee àdduna ak àllaaxira lañ yor lépp xam nañ ni maa ko liggéey ba mu ñor ma jox leen ko kon nun ñii man ak yéen ak kuy seetaan ku ne ku fi yor dara xam nga di kon Serigne Touba ko moom leer na la yow yemuma ci. ngërib sëriñ rek wala déedéet waaye taalibe yi sax laa wax ku gëm sëñ tuwaa te muy dëgg ci yow moo dogalee noonu yow ba lay booleeg sëñ Tuubaa la moom lañ la jox loolu nag du wax joo xam ne gis na ko fii waaye ëllëg dina leer yowmal xiyam kon kenn ku nekk ku fi taxaw tey rek leer na la ni li nga yor wuroo ko bàkkoo wuroo ko Sëriñ ko moom ku mu mën a doon rek wuroo ko bàkkoo ndax ginnaaw maam Cerno lay wax loolu di ko wax maam Cheikh di ko wax maam sekkantu wala kenn nun ñii dégg laa wax mu yor dara lu mu bari bari alal ak lu mu mën a doon da koy leer ni lii Sëriñ Tuubaa ko moom waaye du njàmbaaram amul benn werante kon lan loolu war foofu delloo Serigne Touba lu mu bon bon bu ko laajul itam li ci war nu delloo ko Serigne Touba defal koo ci man di loolu laa gëm li ci war nu delloo ko Serigne Touba defal liggéeyal ko ci kon kenn amul dara lépp Serigne bi Serigne bee baax rek lépp mënu ko baax kon loolu war nañ ko bàyyi xel baax a baax ginnaaw loolu nag bi Serigne bi waxee loolu ba noppi am na lu mu teg ci waxtaan wi dafa wax nii mu Modou tar ak ña fa nekkoon ñëpp mu ànd ak aal ju metti aku tàngoor ginnaaw bi mu leen waxee ne loolu ba noppi daal di ànd ak tàngoor bu metti moom sëriñ bi sar ni leen wol leen moom mboolem ku fi nekk ak ñi fi nekk ci taalibe naar yi yëpp ñu ñëw ma wax leen sama bopp bi ñëpp teewee ba toog mun leen nag bis ni ki tey dama leen bëgg a xalaat sama man sama liggéey jeexoon na ci géej ga gànnaar gii su ma fi ñëwee seen a tax lan lay firee loolu nan ngeen di déggee loolu ajjuma jiinu jëm bu soobee yàlla ajjuma jiinu jëm buñ ci eggee di ngeen xam li Serigne Touba wax ca Sarsara ak mbooloo ma fa nekkoon ba mu leen ne man sama liggéey jeexoon na ca géej gi fii su ma fi ñëwee seen jëmm yi rek a tax toskar gi ak tumuranke gi ñu nekk yépp su ma fi ñëwee seen jëmm yi rek a tax ni leen bis nag dana ñëw boo xam ne ku ma fa defalul dara man Serigne Touba mënaloo ma dara ku ma fa mënalul dara defaloo ma dara loolu nag bu ngeen ko bëggee xam ak la ca topp ak la xew Sarsara ak ginnaaw loolu yëpp ci tukki bi incha allahu rabbi dañuy ñaan yàlla bàyyi na fi ba ajuma jàmm kon fii la ñuy yem tey ci tukki gànnaar bi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañ ko dégg te jariñoo ko mu doon loo xam ne dañ ciy jële njariñ loo xam ne daf ñuy yokkaat revigoré nu ngir nu gën a bëgg sëñ Tuubaa gën a xam li mu doon daj ngir ummal islamiya li mu doon daj ñu ni aslamtu si yëpp te xam ne leen am lépp ci ay bien bu dee xaalis la bu dee kër bu dee alal lu mu mën tey war nañ cee jàngaat lii mu wax tey ji nu delloo ko Serigne Touba liggéeyal ko ci toolu lislaam bi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii nga xam ni waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi koy def te muy woote boo xam ni ñu ngi koy defee ca Ndakaaru ca place de l'Obélisque ca monument ba suba ca 10 heures yaakaar naa ni képp ku di jullit itam barab boobu war nga faa taxaw lu tax xool leen Serigne Touba la mu doon def da doon liggéeyee yonent bi bu ñu demee ba jibi jamono nag am ñuy wax ci yonent bi lu ñu war wax ci yonent bi kaay li ñu taxaw rek naqarlu loola yaakaar naa war naa yomb bépp jullit tey kenn warul ni grasse matinée wala damaa naajee yow déedéet fajar ku ko julli war ngaa mën a teew tey ca place de l'obélisque ànd ak ñëpp jullit ñëpp taxaw ñu wane ni lii ñu def day dakk te naqar noonu dëgg la naam def nañ ko war nañ ko waaye nag dañ ko war a jëmmal ndax l'islam rek moo boole muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon collectif bi yëpp kuréel yi ci bokk yëpp ñu war ñëpp war nañ faa ci képp koo xam ne jàpp na ci yow waroo ko waaj muy ca ndakaaru ngir naqarul li nga xamante ni bi moom la mbay soosu doon def teef boobu moom la def muy Macron moom ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñëpp ba noppi jox leen message ne la nag loolu dafa war a jeex dafa war a dakk waaw kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di gërëm Serigne Mouride Dia ñu nekkoon ci wàllu xarala gi Baye ja Dia <coughs> Serigne Lamine Ndiaye di gërëm ñëpp rek <coughs> Serigne Mor ñu ngi lay sant baax ci liggéey bi <coughs> bi jërë ngeen jëf eh, Serigne Abdourahmane bàyyiwuñ kenn bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi leen di leen gërëm tey nag lii lañ leen indi indiloon ci Saxum Touba muy ñetteelu waxtaan ci tukkib gànnaar bi insha allahu rabbi ajjuma ji nu ñëw fi yàlla bàyyee nu ñëw ak yéen ci li topp loolu ci sarsaar la ca topp waaye li sëñ bi wax ak ñoom foofu daal ajjuma lañ koy eggale bu loolu jàllee itam wax nañ leen ko léegi ni ñu commencé di def conception programme yi xam ngeen ni am na lu sëñ Mor def muy keppaar gi am loo xam ne dina ko def muy xew-xew ay bis bi loolu yëpp diggante gaaw ak dimanche ji ak alarba waaye am na yeneen yoo xam ni mi ngi ñëw muy jataayu murit saarix incha allahu bi balaa yàgg noonu lañ koy toppee ba ay bis gi yëpp fees waxtu yëpp fees ci lu nu mën a dimbali delloonu ci Sëriñ Tuubaa te mooy delloonu ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ ci li nga xamante ni bii lenn nag dinañ ko wax rek mooy mënuñ ko bañ a wax ndax bu fekkee dañuy déglu saa su nekk di am lu ñu yaakaar ci ñun noo ngi koy wax jeunesse bi man de yaakaar naa ni képp koo xam ne yaa ngi bëgg a jóg ngir teral say waajur ak bëgg a tekki gëm naa ne soo doyloo yàlla yonent bi topp Serigne Touba topp ci xasida yii dem ci àll bi bay wala nga jàngi métier wala nga ambulant ji man gëm naa ni kenn ku ci taxaw ki xasaayit bay def loolu ba noppi la ngay wuti ci bitim réew dëgg la yàlla mooy dogal ña dem dem nañu suñu borom moo ko dogal waaye nag képp ku ko man te man koo teg ci yoon wu sell woo xam doo gaañu. loolu dara néew ci waaye nag am na loo xam ne sax bu buñ ko seete ci islam masala bi mën nañ koo jàppee xaru ndax bu fekkee mënum ndox mosoo génn xamu dara mu wér leen lii ma nga cee faatu loolu buñ ko seetee dëgg-dëgg ci masala bu mën naa dem ba fekk après kii da ngay ndax yow xam nga ni mënum ndox xamoo géej te xamoo foo jaar loolu ca boo lëkk dafa mel ne doon xaru ndax li ngay def tegu loo xam ne loo xam la loolu mën na la caa fekk loo xam ne nag bakkan bu faatu mën na la caa fekk dëgg-dëgg war naa mën a kon ànd ko dal te muñ xam nañ ni jamono ji di métti xam nañ ni réew mi te yàqu gum yàqu ak bon gum bon ci yorinu lu bon a bon loolu yëpp da ngeen di muñ te xam dina jeex bisa ngi ñëw incha allahu rabbi dina jeex waaye nag ku mën a dem na nga dem te teg ko ci yoon wi ko waaye nag jëmmi jaar ci nag ci géej gi wala ci même ci géej gi ci ku def ci anam boo xamante ne bii loolu mën na la caa fekk loolu itam wax dëgg yàlla jeunesse bi mën nañ cee tey tey leen si rek ànd leen rek akum njàmbaar li ñenn ñi nga xam ne yor seen i doom rek gone yii nañ leen yóbbu ci daara yi ñu jàngi alxuraan ñu yóbbu leen ñu tarbiyewu gone gu tuuti demagul fenn nga tàmbale ko di ko liggéeyloo liggéey boo xamante ni bii amagul saxum xel loolu nekkul mënut a jëmale am réew kanam nit ku nekk fa mu toll étape ba nga koy toll da nga koy tollale ca la mu toll yóbbu leen ñu tarbiyewu jàngi alxuraan ñu yar leen ba bu ëllëgee ñu mën a yor seen bopp ci anam bu ne même bu tolloo jafe-jafe sax diñ ma dew kon loolu mooy wax ci noo ngi sant ñëpp di ñëpp. jërë ngeen jëf ba àjjuma ak jàmm incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf alhamdulillahil karim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lian xad sahani li watani